Serigne Mbaye Thiam ministre daan nay wax ne Mouhamadou Moustapha Ba mii nga xam ne moo nekk ministre des finances maanaam woo ko ay yoon yoon ngir nag mu bokk ci bi waaye suñu ko waxee dafay wax ne liggéey bi nga xam ne maa koy def ci ministère des finances am na solo Guy Marius Sagna moom ko am respect la ko am la ci Mouhamadou Moustapha Ba ndax nee na ko am esprit républicain la yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien nee na Ba mii

du moyu la te loolee moom la askan wi def Macky la lancé li nga sa ñu xëy fekk fa Aïssata Tall Sall ministre bi ñu dénk

bi nga xam ne moom lañ jagleeloon coronavirus loolee mënuñu ko bàyyi mu sedd loolee nag moo tax ñoom Ousmane Sonko dinañu amal concert de casserole la 31 décembre maanaam waxtu wi nga xam ne Macky Sall moom lay def discours à la nation jamono joojee ci la waa coalition Yewwi Askan Wi woote li nga xam ne mooy ab concert de casserole la nee nañu askanu Sénégal gi yëpp maanaam nañu génn ñi nga xam ne ñuy waa coalition Yewwi Askan Wi ñoom nee nañu ci journal bi de las 31 décembre du yomb ndax duñu may dara Macky Sall yéene kaay gi di réew mi ko di ñu xëy bi ñoom tim woote nañu ab rassemblement bu mag 30 ci place de l'Obélisque ndax ñoom Alioune Tine nee na nga xam ne moo am ci rapport du Cour des comptes bi doy na waar loolee yi fu criminel la yéene kaay gi di Rewmi Quotidien docteur Babacar Niang di ko feelo suma assistance moom nag nee rapport du Cour des comptes maanaam gàcce la ci am te nag lii yëfu crime la ñi nga xam ne joxar bi nañ leen ci baaraamu tuuma li ci doy waar mooy dara du leen ci fekk te ñaata nit ñoo faatu ci coronavirus des comptes loole lépp Macky Sall mooy nday mbili gi Macky mooy parrain bi ndax Macky Sall moo di wax def leen neex bu ngeen pare ngeen dem politiquement moom jiitul Pastef nee na fanweeri fan ci weeru décembre na askanu Sénégal génn ci rassemblement bu mag bi xam ne société civile bi woote nañu ko sa Colobane waaye tamit 31 décembre na askanu Sénégal amal li nga xam ne mooy concert de casserole bi waaye nag concert de casserole bi su de casserole yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na journaliste d'investigation bi di Pape Alé Niang jamono ji wàllu wér gi yaramam sooxe na lool journal di bés bi nee Grande-Bretagne ñoom nag def nañu ab rapport nee nañu Sénégal ci jëm ci wàllu blanchiment de capitaux seetal xaalis bu salteeg financement du terrorisme Sénégal ma ngi ci ligne rouge yéenekaay gi de Les Échos dossier Adji Sarr Ousmane Sonko léegi tey doyen des juges daal koy boucler journal bi fan yu néewa doyen ëmbu médecin ak pharmacien yu Sénégal ñoom nag ñoo ngi sàkku ci état bu Sénégal mu garantir sécurité Alfousseynou Gaye di docteur bi nga xam ne moo defoon certificat médical bi ci Adji Sarr yéene kaay gi di libération xëy di ñu xibaar naan ñu Kunkandé charlatan bi teg nañu ko loxo ndax dafa am benn waay boo xam ne da koo joxoon lu toll si juróom-ñaar ci ay millions ngir mu defal ko ko lu toll ci sept cent millions yéene kaay gi di sunu lamb xëy di ñu xibaar naan ñu Boy Niang numéro 2 moom nag nee na pare na ci combat nga xam ne moo war a dox digganteem ak Balla Gaye numéro 2 Boy Niang 2 nee na bis ba dina jël bakkanu Balla Gaye